te yi fësal ni ki tey leena ak jàmm cosaan fa ñu ko doon taataan ëkk ya fa des ba léegi suur na nu gor lu doy amul doy lu lanu wax wax ji moo di jigéen ndimbalu kër la ci poosam wala ci jëfam seen jëf ñoom jigéen ñi ci koomu réew mi moom la Fallou fay ak Serigne Saliou Yade bu l'Observateur xëy di càmbar yéeni kaay groupe Futurs Médias bi ne rapport bi ANSD fésal moo wane ni ci jamono yu mujj yi jigéen ñi def nañ jéego yu rëy ci wàllum liggéey dugal seen loxoot ci koom bi lépp ñu jaare ko ci entrepreneuriat ak leadership rapport bi leeral itam ne jigéen ñi def nañ lu ëpp ñaari junniy milliards ci koomu réew mi président Macky Sall moo koy jiite direct news ab nataalam la xëy fësal ci waxatam yéenekaay bi ne njiitu réew mi dugg na ci combat bi mu duppee front social ne li mu bëgg moo di njëgul dund gu cher gi ñu wàññi ci ni mu gënee gaaw nekkit xibaar boo xam ne ba mu jibeek léegi lu neex la borom kër yi ba tax ñoom ñëpp ñu ànd tàccu ci las quotidien ñu ne wax yomb na waaye jëf ji moo jafe ba tax ñoom borom kër yi di sàkku ci njiitu réew mi di président Macky Sall yi kàddu mu bañ a nekk ay naxee mbaay nan ko jëfee ak ci nun ko mënee defee borom yi ne dund gi cher na sonn nan Sall ci journal L'Info ne dogal bi président de la république jël jural na réew mi yaakaar naam ne am na xel ñaar ci jëfe ko lii quotidien ne dëgg la dund cher gi njiitu réew mi di président Macky wax ne nan ko wàññi ci ni mu gënee gaaw am nañ ci yaakaar waaye nag yéenekaay bi nee na li ñuy xalaat moo di ndax mbir mu ni mel dina dem ba atum 2023 surtout quotidien ne loolu moo tax mu woolu ay xeltukat laaj leen ku nekkit joxe sa xalaat ci biléb dogal dogal bi Aminata a Mané ne Aminata Touré li muy wax jëmale ko ci mbir ma kay tàmbali na ci diggante moom Aminata Touré ak waa Benno Bokk Yaakaar ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ndax mën nanoo jële Aminata Touré ca pencum ndaw di assemblée nationale docteur Mbaye Cissé nekk ab juriste ne déedéet ci source a juriste bi ne buñ ko sax jéem ndax ne fii ak mi mi démissionné gaa yi dara lañ ko mën ñaanalul Walf Quotidien lu ci mën di am daal diggante Aminata Touré ak waa Benno Bokk Yaakaar narta yomb benn yoon ca péncum ndawi réew ma réew mi douanier yi fi nekk waneeti nañ seen bopp Le Quotidien gablu yi lu ëpp benn milliard ci xaalis CFA lan jàpp ak ñaari doomu aadama ca Rosso ñu jëmoon ak moom ca réewum Mauritanie réewum Sénégal ak réewum Arabie Saoudite xaatim nañu déggoo Le Soleil national moo ko wax yéene ka bi ne ñeen fukk ak ñaari milliards le conseil d'affaires sénégalo-saoudien noppi ngir ko ci tabax autoroute Dakar Tivaouane jàpp Saint-Louis jàpp mbuur jëlati nay bakkan l'observateur moo ko wax journal rue 15 angle corniche bi ne ci benn bés fukki doomu aadama ak juróom ñàkk nañ seen bakkan ci ay l'accident ci kaw tali bi lépp nag mi ngi xewee ci diggante mbuur ak dakaar ak diggante Sinthiou Malem jàpp Koussanar turbine yéen kaay na dëgg la yoonu Tambacounda ak mbuur kay ci benn bés fukki doomu aadama ak juróom benn faatu nañ ci ci ay l'accident di lu doy waar li doy waar kay moo ngi ci xëtu njëkku libération journal bi ne faatug Nafisatu Jeeju am na keneen ku takk deri njortu ne laale na ca ba tax moom it jamono ji yoon teg na ko loxo yéenekaay bi yokku ca ne autopsie bi la mu wane dafay dëggal la enquêteurs ya njortoon keneen ku nekk ci enquête jamono ji moo di Californie ndaw la l'observateur xëy dalal aji caare jaw lay wuyoo bàyyilul dara waa lobs am njàngam ci ñi mu jàllee concours si bi ba ci ni mu waxee ni Californie da ko violé lépp la waxtaan ak waa l'observateur waaye yéenekaay bi nee na rapport bi gynécologue bi fésal la mu wane moo di viol amul ndaw si weddi ko ba mu set ndax nee na gynécologue bi ak rapportam lanu wax dara du ca dëgg ndax nee na Californie na ko ko duma na ko jërëjëf sëriñ